chers patriotes qui ont répondu à l'appel de la cause, chers invités et observateurs de la vie politique, nous sommes très heureux d'être là pour échanger avec vous des derniers développements de l'affaire Suite boutique euh, la position de Pastef Depuis la naissance de notre parti, qui ne cesse de rayonner dans l'espace politique, nous avons subi toutes sortes d'attaques et de dérives, radiation, radiation intimidation, agressions, assassinats qui n'ont pas empêché le rayonnement de notre parti au niveau national et international, jusqu'à devenir le premier parti de l'opposition sénégalaise. L'affaire Suite Boti, osons le dire, est un complot où les acteurs, dans leur agissement maladroit, ont plongé le Sénégal en mars 2021 dans une période sombre qui n'eût été l'esprit patriotique incarnée par le président Ousmane Sonko allait plonger le pays dans un chaos et une situation désastreuse. Mais malgré tout, le régime n'a pas pris conscience du cri du peuple sénégalais. La justice sénégalaise a montré ses limites pour nous dire encore une fois qu'elle est au service d'un seul homme obsédé par le pouvoir et qui la manipule pour ses propres désirs. Elle est devenue cette justice une arme de liquidation d'opposants politiques. Le président Ousmane Sonko, candidat légitime de notre parti, ne se livrera pas à une, justice déjà préparée pour anéantir le projet PASTEF. Nous ne permettrons pas euh, à ce président qui est au crépuscule de son règne de sacrifier notre patrimoine, l'avenir de la jeunesse. Les partis de Nioro disent non au procès, qui est la suite logique des agissements du régime depuis le début pour atteindre ses objectifs. La résistance avait, en mars euh, avait commencé en mars 2021 et ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Nous la continuerons pour libérer le pays et le sortir du gouffre dans lequel il est plongé. Pour conclure, nous disons au regard de ce qui précède, vu les positions dégagées, nous, Pastef Nioro, à l'unanimité, demandons au président Ousmane Sonko de rester focus sur 2024. Et nous, militants, nous allons protéger le projet et celui qui l'incarne. Pour finir, nous rappelons notre droit constitutionnel et fondamental à la résistance que le président Ousmane Sonko, notre candidat en 2024, est notre plan A et notre plan Z. Aucune force aucune lobby ne pourra nous détourner de notre objectif. Je vous remercie de votre attention. Je suis tudd Mamadou Lamine Mbow beaucoup Pastef Nioro DRIP pour journalistes yi ñu leen di de bu baax di leen di sant seen teewaay di wax ne dimanche 29 janvier 2023 dañoo bëgg mu nekk bés boo xam suñ kaddu yi ñëpp daneen dégg la position de ñoro si caaxaan yi nga xamante ni moom la gouvernement Macky Sall ak ñu koy jàppale nekkee ñu xam suñ position mooy lan président Ousmane Sonko ñu ngir moom ndax dafa rafet mais dafa am lu mu àndi wane ko mu leer sénégalais adhéré si massivement rawatina la jeunesse mu nekk suñu espoir espoir si projet espoir si idée yu mu andi ñu war a jël Sénégal jëlee ko fi mu nekkoon si ay loxoy tubaab delloo ko Sénégal yi ñu moom seen réew dagg mbuumu njaam gi ñu dem ba Sénégal yëpp loolu ba nga xamante Macky Sall tey mu ngi nekk au crépuscule de son règne nguuram jeex na parce que 2024 nag àgg nañ ca ñu xam ne ñoom li def si ay tappale si ay looxoor ñu ne ah gis na ne bu Ousmane mi ñëwee du leen jural jàmm parce que ko aj buggul ku teen te Ousmane liñ def xam na ko ñun xam nañu ko te ñoom xam nañu ko ñu nekk si caaxaan ak caay-caay te Sénégalais yi duñ ko nangu lii nga xamante ni moo xew nag tey ñu nekk si yoonu faagaagal le président Ousmane Sonko andi si ak ay étranger andi si ak ñoo xamante ni lobby moo leen ñor parce que seen intérêt dañoo menacé wu ñu may ay nit ñu taxaw si Sénégal di wax lu leen neex te kenn du wax si ñoom dara ñun kooku ñu nekkee sénégalais ñun noonu lañu nekkee sénégalais bu ñu toogee ku mel ne Amadou Sane kamara taxaw nañ rey Ousmane Sonko kenn waxu ko dara publiquement taxaw ñu enlever des des hommes de de de l'ordre des gendarmes des enquêteurs mu taxaw ne xam ne ni dañ leen boom kenn waxu ko dara suñu mbokk d'abord avant ñu Ousmane Sonko Fadilou Keita bind ne maa ngi yaakaar ne reyuñ sama mag jël si kosa gi tëj ko ay nit taxaw saaga si réew mi saaga aw xeet saaga aw askan ñu daggal leen ñu dem étranger ñun ñu taxaw ku mel ni ne doof dara tëjewuñ ko parce que fa ànd ak Ousmane Sonko ñu dem ba nga xamante ni ànd ak Ousmane Sonko léegi dellu si Sénégal te duñ nangu lu amoon amaat de buñ jàpp ne dañu andi armée teg ko Ndakaaru ne dañuy sécuriser Sénégal Sénégal yaatu na. am na loo xam duñ leen ko wax parce que plan de résistance duñ ko wax si ay rajo mais na Macky Sall xam ne moom jàpp ne lu amoon du amaat ñu ne ko waaw lu amoon du amaat. parce que bi ñu paree ñëpp si ñuy jaale ñun lañ doon ñëw di ñu jaale si bii nag kenn du ñu jaale rek am ci séggil ndigaale ku ñuy séggil ndigaale ñu séggil ndigaale la. Macky Sall bu yàppee ne bu jàppee ne fi mu jaar ak Karim jaar fa ak xalifa Sall Senghor jaaroon fa ak Mamadou Dia ñu jaaroon fa ak ñeneen ak ñeneen. bii du demee noonu parce que jaani bolor la ñuy bàcc laar taxañ def si mbuus may ni ki nanka ku ko laal dee Ousmane Sonko nag ni ki nànk la ku ko laal de te ñu ngi def neen suñu testament comme moom ñun de Sénégal gi la dëkk kenn ku nekk si ñun pare na pour libérer ce pays là nekk martyr je vais à Diallo mu jënd ay percal teg ko fii ñu montrer au yeux de l'opinion de internationale que ne ñun dee benn yoon lay am Lat Joor bu ñu koy jàngale dafa bañoon nooteel mu dee tey ñu ngi koy jàngale il est parti depuis 1886. Ahmadou Bamba Khadim Rasoul bu ñuy ziare gi tey Touba dafa bañoon nooteel ñu exilé ko à l'île de Mayombe bañ nooteel yóbbu ko Mauritanie mu bañ nooteel yóbbu ko sous résidence surveillée jusqu'à sa mort mais dafa il a dit non taxawal lim gëmoon. Maba Jaxu Ba dafa daanu si xare ku nag ñun buñ toogee fa tey fii nit ngi du ñuy wax affaire neutre fii ku neutre rek faru ma fi faru ma fee naa nga. allah kulli ànd dafay far Ousmane Sonko du uy yoon xam nga tax du uy yoon yoon bu nekkoon yoon moo fi am mais malheureusement yoon amul Sénégal te nag gis nga ku ndebbi ndey sa boo sonnee lu ñuul dawal Khalifa Sall dafa xam ne moi j'ai fait fait conscience à la justice de mon pays je républicain mu dem justice ba dëbb ko Karim Wade dañ ko convoqué mu nek Maroc mënoon naa bañ a fait mu ne je fais confiance à la justice de mon pays mu dem justice ba dëbb ko ñii ñu procès viol la loolu lañ wax le certificat médical mo nek pièce maîtresse bi kep kuñ mësa a gis ci viol amagul ben juriste bu am Sénégal bu ñe viol bi amna ñu le certificat médical bi dafa attester que viol amut ñu ne on va continuer le combat amna na leneen luñ nar bu yoon amul nak devant l'injustice il est bien de se révolter le Sénégal cette réunion-là, ici, ce point de presse ici. Parce qu'on sait que cette manifestation publique. On avait décidé, le coordinateur départemental avait appelé auprès du SEDAF et on, nous avait réservé la salle. Mais quand j'ai écrit la lettre d'information que j'ai déposée auprès de la préfecture, euh, à 16h, on m'a appelé à 17h pour me dire, euh, le, préfet m'a notifié le fait que euh, la CEDAF, ou bien le SEDAF n'est pas un lieu propice pour une organisation politique, pour, pour des activités politiques. On a appelé auprès euh, du CELEPS, on n'a pas trouvé preneur. Au final, on s'est dit que on était dans les 112 francs. Si nous Tebon le jeu de règles, on ne pourrait plus organiser. On n'aurait pas une autorisation de l'autorité administrative. Et finalement, donc, on pouvait dire même ça, même c'est parce qu'on sait pertinemment que Fignoro, on a toujours organisé des activités politiques au niveau, euh, de la SERAF ou le du SERAF. Donc, euh, lolu mom y acharnement vraiment on nous met la pression pour organiser même un point de presse alors que les autres ils organisent des, points de presse sans même quand ils veulent comme ils veulent sans même déposer des lettres d'information rien, du tout mais ça également ça montre à quel à quel point euh, le pasteur fait peur euh, à ce régime là qui est finissant qui est au corpuscule de, sa vie comme dit le, le coordinateur ben leader lañ am moy Macky Sall ñeneen ñëpp c'est des dungur ñooñu duñ leen ton ben damay déllu histoire tout rek ma wax leen kan moy Macky Sall en 2007 mu ñëw voter ci élection législative Fatick mu fàtte carte d'identité Dakar mu dajji buntu bi mu ne day voter par force naka jekk Macky ci doole lay dox. en tant que ministre de l'intérieur. en tant que ministre de l'intérieur moy ben Macky Sall képp koo xam ne kii yow musiba nga njaakum ngay dox ci réew mi dina la uuf ku weddi laajal Souleymane zil Diop moo fi njëkk a saaga saaga fi saaga ku dul jeex Macky Sall ne ko kaay mu ñëw raste la defoon Macky da koo war ne ko tuubal naa la jokk suñu drapeau national muy doxantoo suñu xaalis kookoy Macky Sall Macky Sall moom mooy kan Kalifone Sall moo dàkk saaga ñëw leen ñu saaga Macky Sall ne ko kaay dinaan diine woo ak yow ndekke woo ak yow jox la xaalis continuel di saaga man bàyyil di ma saaga ñun amuñu ay ndey Ousmane Sonko amul ndey moom moo am ndey. kan mooy Macky Sall dama koy fàttali rek nag lenn li Serigne Babacar Sy radiyallahu waxoon inna kayda kumba inna kayda kumba baatu wolof laay utiliser kumba kaana aziman gis ngeen pexe jigéen lu rëy la. mais yàlla dafa wax ci alquran inna kayda kunna kaana fan gis ngeen peke seytaane lu tuuti la ci li nga xam ne ni moom mooy peke jigéen makki nag saar inna kayda kumba boobu la mokal gis nañu siiru Macky Sall bi génn nee na yor na ba gis cin bi ba yor bopp bi ci biir cin bi gars tëmbal ko xeer mu tëb ñoo ne waaye

donc ragaluñ li ñuy def du nee na li amoon du amaat dañ ko ne lu mu góob dinañ ko ngar su góobee rek ñu ngar bu tëralee ngóobaanam nag ñu nit ñu tëral suñuy buum mu jeex tàkk voilà donc dafa am problème ci biir crypteur gi bon parti ku nekk ak sa appréciation parce que parti politique la ñu nekk ci biir parti politique bi dina am souvent ay ay ay ay ay féewaloo d'idées ay féewuloo ci gisin mais lu lu mën a wax askan wi mooy Pastef tey jii ci département Nioro drip. Ben benn y a une euh, instance boo xam ne ni reconnue au niveau départemental et au niveau national boo xam ne ni depuis 2017 ñu ngi fi nekk di doxal ce sont les gens de les les gens que vous voyez sur le terrain. xañ na nag des fois parti politique buy màgg dina am ñuy ñëw xañ na peut-être des fois ils ne comprennent pas bien l'idéologie du parti mais ñun ñu nekk ci parti bi tey euh, namp ci parti bi màgg ci parti bi ndax parti bi lepp lu ñu mëna wax ci politique wala toute action bi ñuy def ci mën bi ñuy def ci politique rek Pastef moo ñu ko jangal ndax ci Pastef la ñu tambalé ba fi ñi yegg ci ni tay ñi ñew nak des fois y a un choc bo xamanteni du mëna ñak mais les principes ak l'idéologie bi nga xamanteni tay mom mo mom mo moo moom moo euh, parti bi lolu ñun ci lolu la ñuy tënk di doxal du ñak nak des fois des gens qui viennent am seeni ambition ils ne comprennent pas très bien l'idéologie ak parti bi nga xamanteni mom lay doxé choc un noonu day am ci biir parti bi mais li am solo Nous ñun dañuy taxaw défendre l'idéologie du parti les principes du parti li nga xamanteni ni moom parti et pour terminer il da nga né parti bi dafa de a non parti bi cède en réalité parce que nous sommes dans une massification continue au quotidien nous ngi jokk ak ay nit parti bi di massifié wu activité bu parti bi yëkkati tay damay joxe ben exemple mu némé tur bi ñu génn pourtant le parti Pasteur s'est illustré te localité yi nga xamante ni Sénégal département yi nga xam jël nañ premier ci dajalé seen i koppar te patriotes yi ñoko def militants yi ñoko ko def sympathisants yi ñoko def on a dépassé même les objectifs élection yi ñu euh dafa nek lo xamné ni warna mëna na ci taxawaayu Pastef euh, biir département Nioro du ndax Pastef reste euh, le premier parti d'opposition dans le département